bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa man daa bi daawatihi wa saara ala hadihi ila yawmi ddin assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh bokki jullit yi bokki taalibe yi ginnaaw bu nu santee yàlla sunu boroom julli ci Moustapha sallallahu alayhi noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel di ci jiital saaxibal fadilata wa samaaxa cheikhul xaaj Mouhamadou Lamine Baara mi nga xam ne mooy jëw jëwriñi cheikhuna Ahmadul Xadim yàlla na ko sunu borom dolli fan wu gudd yàlla na ko dolli wér ba li mu yéenee liggéeyal lislaam mu am ca ndam lu kawe njortam te nu ànd ko ak moom di nuyu itam di ziyaara di ndokkeel saaxibal fadila a cheikh Mouhamadul Muntaqa moom cheikh Mouhamadul Bachir ak mboolem njabootu ak mboolem njabootu cheikh Mouhamadul Bachir moom cheikh Muntaqa naal yi nga xam ne sunu jàmbaar ja jàmbaar ja nga xam ne kenn mënu ko ci toolub lislaam kenn mënu ko ci waaru cheikhul xadim muy cheikh Mouhamadou Moustapha moom cheikh Mouhamadou Bachir sunu jàmbaar jooju nga xam ne naal yi sëriñ ñu tudd léegi yépp moo ko tàmbali am ci ndam loo xam ne ndam lu yéeme la yàlla yàlla na nu ko yàlla na nu ko yàlla fayal te yàlla na nu yàlla taas ci barkeem waaye moom mi nga xam ne moo taawu la mu yenn woon tax na xel yi gën a dal tax na xol yi gën a sedd yaakaar yi gën a feddaliku ndax wàccul yoon wa ci pas-pas wàccu ko ci yitte wàcce ko ci jëf wàcce ko ci gindee ak wommate fan yee rek wax naa ko ne ko maa ngi lay ndokkeel ci yaar yëf néeg yàlla bii nga defal sunu borom ci daarul minan muy wétal Cheikh Mouhamadoul Bachir jumaa jumaa yi ci dëkk bi de yëpp neex yàlla yëpp a neex sëriñ bi waaye soror yi nga royee soror yi ma dina mën a war bokk na ci jëf yi gën a neex sëriñ bi ma ne ko itam dem ga nga demoon doon ziyaare ji sa mag bu mu Mouhamadou Lamine Baara ak jëf ju réy ji nga jëf tax na képp koo xam ne ak jàppam ci moom desoon na gën naa jaaju képp koo xam ne jëfam desoon na gën naa laxasaayu ndax yow de képp koo xam ne jàpp nga ko ñëpp xam nañu ne ku mat a jàpp la képp koo jëfal tam xam ne ku mat a jëfal la kon nag liggéeyal nga yoon wi liggéey boo xam ne yow mi ko jëf sax gëw ma ne xam nga ni ko jëfe kon sëriñ Muntaxa yàlla na ko yàlla yàggal ci sunu kanam mu am ndam yoo xam ne doonu koy damoo ba faaw te lépp nu ànd kook moom jataay bii nu toog sëriñ Moustapha moo nu ko daan liggéeyloo maak sëriñ Omar Kane mais waaye bi mu wàccee sëriñ Muntaxa dafa wax ne lépp lu sëriñ Moustapha doon def ak di ko def lu dama cay barkeelu kon jëfam ci lay barkeelu moo tax ma leen di liggéeyloo kon yàlla na yàlla yàggal jëf ji bis bii nu daje nag di ko def at mu jot ki tax nu daje fi nanu xam ne doon yaafus ndax lii mu am yaafus du ko am lu gën a jege si waaw ndax li mu am yaafus ko am te jigéen ñu baax ña ko jiitu woon am ngërëmul yàlla yox yox yi ak yaafus mayu leen ko soxna Maryam alayhi salaam soxna asiyatu soxna xadijatu soxna aïchatu soxna umu salamata ak ummahatul muminin yëpp la ñu am ci ngërëmul yàlla yaafus mayu ko ndax soxna si day ñëpp xam nañu ne ay atam ci laahir bariwul waaye lu mat a def def na ko ci ba mu tolloo ci xamlu mu jàng jàng ba lu doomi soxna di xam xam ko ba mu tolloo ci jub mu tege ci yoon ba kenn du ko séen ci lu naqar yàlla nangu kilifteef wamut ndax xam ngeen ne ba ñu ñëw poroxaan fii ci Saalum de booba amutu yoon te booba àll bi mokkul nag ment yi bari na waaye nangu kilifteef moo ko fi indi ñëw laxasaayoo nekk ak kilifaam nekkin wu gën a rafet ña mu bokkaloon daara mu nekk ak ñoom nekkin wu gën a rafet ña mu dëkkaloon mu nekk ak ñoom nekkin wu gën a rafet ak njabootam mu di leen nàmpatal ci lislaam ndax ñëpp xam nañu ne sëriñ Bachirou moo bind ne soxna si moo daan xiir sëriñ bi ci naafila guddi te booba sëriñ bi matagul a dem daara mu ne ko min dabi saalihiina qiyaamul layl nit ñu baax ñi duñu fanaane nelaw guddi dañuy nelaw tuuti la ca des ñu fanaane ko taxaw di jaamu yàlla koo xam ne sa doom ji mëtt dem daara da koy nàmpatal ci jaamu yàlla jigéen jooja mooy jigéen ju man góor soxna seen nag noonu la meloon yiw lool ci col yiw lool ci wax yiw lool ci dox yiw lool ci jëf ba tax na ñi nga xam ne ñooy ay sopp soppeem nañu xam ne am nañu royukaay bu fees seen bët am nañu royukaay bu fees seen xol am nañu royukaay bu fees seen nopp kon képp koo xam ne dangay jigéen ba ci góor sax bëgg nga am ngërëmul yàlla na nga xeñtu mbooroom soxna jaar gëstu doxinam nga di ko jéem a doxe sëriñ Saalihu mos naa wax ne yàlla ko yàlla ko yàlla dolli leer mos naa wax ne roy ku baax li tax mu baax soo melul li moom it danga raw say moroom kon roy soxna jaara li tax mu baax soo melul ni moom it da raw say moroom kon nañu roy soxna jaara ci jëf nañu ko roy ci wax nañu ko roy ci yitte nañu ko roy ci dégg ndigal ak wommatu suñu ko defee ñooy doon dëgg-dëggi soppee soxna jaara ndax kat soppe soppe soxna jaara la wax ko yomb na waaye wolof nee na nit melul na mu wax na mu jëf rek la mel kon ñi ñëw ci bis bi ngir di xeñtu mbooram di déglu ay waxtaan ñu leen di waxal ay jaar-jaaram ak i melokaanam na ñu ñëwee pas-pas fas yéenee taatan ba suñu demee mën a yóbbaale ay njëriñ waaye ñëw fi nekk ci la neex doo jàng alquran doo ziyaara ku mat a ziyaara doo tudd yàlla doo jox bokk doo berndeel di xalangu ak yu kenn xamul loola nañu ko teg ci suuf li sëriñ bi wax doy na sëkk ci wet googu duma ci dellu kon damay dugg rek ci li nga xam ne mooy ndigal li moonu fi tax a toog muy waxtaane ixlaasul amal lillaahi taala te mooy nit ki li muy jëf ak li muy wax ak li muy yéene na ko yàlla rekk lal ndax nit ki di wax di sonn di jëf di sonn di dem ak dikk di sonn te yàlla lalu ko pas bas bu sell lalu ko yéene ju rafet lalu ko da ngay sonal sa bopp képp waaye doo ca am doo ca am benn toyaabu yàlla yàlla ci yàlla musal kon bu nu bëggee yàlla di nu fay bu nu bëggee yàlla jëf ak nun ci ni mu toll te bañ a jëf ak nun ci nun ni nu toll dañuy jiital pas-pas bu sell ak yéene ju rafet li tax mu jafe nag doomu aadama dafa am ay noonam yoo xam ne ñoo ko dar te fa suñu yéene may ko jàmm ndax soo doon bëre bëre mbër moo xam ne soo ko daanee daanati ko daanati ko mu ne la yaa ma man dem yoonam kon nga am jàmm waaye da ngay bëreeg mbër moo xam ne du yokki du tàyyi te du tekki ay jàjjam te mooy bakkan te mooy saytaane te mooy bànneex te mooy àdduna noon yi dañuy noon yoo xam ne du ñu tekki seen jàjj mukk ci àdduna saa soo góorgóorloo ba jàggi ruur bul defee ne am nga jàmm ña ngay jekkandiku ña ngay waajaat ngir dal ci sa kaw am noon bu mel nii nag waroo nopp lu guddi waroo nopp lu lay tax nga mucc ca nag mooy sukkandiku ci yàlla jàpp ci yàlla wéetal yàlla sa jëf yépp yàlla rekk a tax bu ci seytaane am wàll bu ci àdduna am wàll bu ci bakkan am wàll bu ci bànneex am wàll yombul nag ba rek seytaane ba daane ko yombul bërig bakkan ba daane ko yombul bërig bànneex ak bakkan ba daane leen yómbul moo tax sëriñ boo waxoon ne jaawartu bil furqaani rabbiyal muin malaktu nafsiya kon bëri naa bakkanam ba moom ko ba lu ko soob rekk la koy defloo wa zahzahtu lain dàq na seytaane ba mu sori ko ba dootu ko jiimal dara axadtu min duniyaahu ji lil jinaan àdduna kenn mënu ko bàyyi waaye la nga ciy jël jëla ko si néew koy jël ngir di ko dimbali ko ci lu neex yàlla wan qaadalil hawa ba neex nga not ko ba moom ko fu la neex nga jëme ko ku jaar yoon woowa de am jàmm lay tax nit ki mën a jaar ca yoon woowu nag mooy da ngay am ixlaas ixlaas nag moom rek la yàlla soxla sunu jëf yi lu mu bare bare bare bari lu mu sakkan sakkan sakkan te sellul yàlla amu ca soxla moo tax mu ne inna anzalna ilayka alkitaaba bilxaqi fa abudillaha muxlisan lahu diin ala lillaahi diinul xaalis yàlla li mu am soxla muy ak diinul xaalis muy diina ju sell kon sellal mooy lan sëriñ bi nee na al ixlaasu ixraajul xalqi min al amal nee na looy jëf bu ca booleel mu mbindéef mu yàlla sàkk kon looy def na yàlla rek a tax looy def na yàlla rekk rek a tax soo wéetee na yàlla tax soo wéetalikoo na yàlla tax am na boroom xam-xam bu ñuy wax yaxya ibnu muaz nee na nit ku sellal day yor ji koy liir nee na liir ki koy tagg ak ki koy xas xàmmewu leen boo demee nag ba àgg ci xàmmewoo ko lay tagg ak ku lay xas xamal ne muxlis nga yaa ngi am ixlaas waaye féeg yaa ngi bàyyi xel ke lay tagg mu di la neex di bàyyi xel ke xas mu di la naqari xam le amagoo ixlaas ixlaas nu ñu ko mën mën a xame mooy jëf jooy jëf da xam ne am na biir am na biti jëf joo jëf rek am na biir am na biti biir ba mooy lan mooy na ko yàlla rek lal yéena ju rafet ak pas-pas bu sell rekk na ko lal moo tax ku ku tedd ka ne woon innamal amalu binniyaati jëf mi ngi aju ci yéene ju sell ak pas-pas bu rafet loolu mooy biir bi nit du ko gis yaa ko xam yaak sa boroom waaye it am na bitti bitti bi mooy lan mooy looy jëf na dëppoo ak na ko lislaam bëgge looy jëf na dëppoo ak na ko lislaam bëggee sa yéene lu mu sell sell sa pas-pas lu mu dëgër dëgër te jëf ci dëppoo ak lislaam suñu borom amu soxla sa jëf lu mu dëppoo dëppoo ak lislaam te yéene ja sellul pas-pas ba rafetul suñu borom amu soxla kon biir ba mooy yéene ju rafet moo koy lal ak pas-pas bu sell mooy innamal amalu bi niyaat biti ba mooy day dëppoo ak lislaam mooy man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd ku jëf-jëf joo xam ne dëppoowul ak li ma indi man Moustapha dañ la koy delloo yàlla amu ca soxla kon suñ jëf yépp nañu ko peese xam ne am na biir xam ne am na bitti biir ba mooy yéene ja na rafet pas-pas ba na sell waaye bitti ba na dëppoo ak na yàlla bëgge ak na lislaam bëgge moom la alquran naan wa man axsanu diinan mimman aslama wajhahu ila llaahi wa huwa muxsinun islaamul wajhi ila llaahi mooy biir bi wa huwa muxsinun ixsaan bi mooy bitti bi kon jëf dafa am biir dafa am bitti jëf bitti ba mën naa rafet lool mel ni dëppoo ak lislaam waaye bu ko pas-pas bu sell lalul yàlla amu ca soxla ma jox ci ñaari misaal jihaad ci yoonu yàlla ak xeex ni mu mettee ndax yore jaas yi wala nga yore fetal di rayee wala ñu rey la lu metti la te ndekk nit dana ko def te yàlla taxu dafa am benn kaw kaw arab mosa laaj bi sallallahu ne ko yu الرجل يقاتل للمغنم wa يقاتل ليذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه faman fi sabilillah mu ne kuy xeex ngir alali àdduna walla muy xeex ngir bëgg ñu koy waxtaane ak njàmbaaram walla muy xeex ngir bëgg ñu gis ko ndax am na tuyaabo yàlla mu ne ko man qaatala li takunu kalimatullahi al ulya fa huwa mu ne ko kuy xeex ngir yëkkati baatub yàlla kooka dong moo am tuyaabu yàlla gis nga xeex ni mu mettee kon nit mën naa xeex te du am tuyaabu sunu borom ndax nit dana xeex ngir am koom nit dana xeex ngir gis leen ma nit dana jihaad ngir dégg leen ma waaye ki sellal yàlla rekk tax muy xeex yëkkati diina tax muy xeex kooku dong muy am toyabu yàlla kon jihaad benn misaal la ba ca tege mooy tabax jumaa jumaa ñépp xam nañu ne néegub yàlla la wa anna al masajida lillah waaye jamono yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa am ñu ñëwoon ne ko dañoo xaw a sori jumaa ju mag ji bëgg nga may nu nu tabax jumaa ca sunu koñ di fa daje di fa julli mu ne leen may naa leen ko ba ñu demee tabax jumaa ja ba mu yegg ñu ñëw ne ko dañoo bëgg nga teew ca jumaa ja ubbil ñu jumaa ja julli fa mu ne leen danaa ñëw waaye alxuraan dafa wàcc ne ko walladina taxadu masjidan diraaran wa kufran wa tafriqan bayna almuminina wa irsaadan liman xaaraba allaha wa rasulahu min qablu wala yaxlifunna in aradna ila alxusna wallahu yashhadu innahum la kaasibun laa taqum fiihi abadan ndeke ñoom ay naafiq lañ yoo xam ne dañoo bëggoon am ruq bu ñuy fexeel lislaam te xam ne jàkka buñ fa dee fexee lislaam kenn du ko foog su fa mbooloo dajee dañuy defee ne rek ñuy jaamu yàlla lañ ñu bëggoon am jàkka joo xam ne nag dañu fay daje di fa fexe lislaam mu jox leen ndigal ñu tabax jàkka ja bëgg nag mu ubbi leen ko suñ borom ne ko ñi tabax jàkka ja ngir fexeel lislaam ngir fexeel diine ji ngir fexeel la te soo waxee ñu yàlla rek a tax yàlla rek a taxut sab tànk bu mu fa jam juma mu ne ko sab tànk bu mu fa jam ab tànkam fu mu war a jam la masjidun us ussisa ala taqwa min awal yawmin axaqu an taquma fiihi fiihi rijaalun yuhibbuna an yatataharu wallahu yuhibbul mutahhirin jàkka joo xam ne yàlla dong tax ñu tabax ko te ña fa nekk di ay nit ay góor yàlla képp jooje bu ñu la fa wooyee demal waaye jàkka joo xam ne ay naaféq rek ñoo ko taxawal bu fa sab tànk jam kon gis nga tabax jumaa ni mu baaxe ci diine ak ni mu rafete nekke nit dana xalaat tabax jumaa te yàlla du tax moo tax ma ne sëriñ Muntaxa sa jumaa jii de jumaa yi neex yàlla bari na yi neex sëriñ bi bari na waaye jii nga royee soro sooro di Madina Munawwara bokk na ci yi gën a neex Serigne Touba ndax yàlla dong tax mu tabax ndax jumaa joo xam ne ba nga koy tabax amul propagande amul coow amul laaj da ko xumtoo ba mu yegg xumtoo ko ba mu yem di ta sagub lislaam loolu neex na yàlla neex na Serigne Touba yàlla na ko yàlla fayal. bind rapport yónnee Ndar. lu mu fanaanu ñu bind rapport yónnee ndar loolu nag gannaaw ci kanamam la mënoon a am ginnaawam kenn waxaal yi kanam mbooloo mu ànd mu ne ne dañuy liggéeyal yàlla dañuy liggéeyal sëriñ bi nañu séenu ne nduxum mënu ca tàbbi ana nduxum mooy lan mooy yii xew rek saa su ne nga gis mbooloo moo xam ne dañuy ànd di tuddoo sëriñ bi sëriñ bee ma ñor liggéeyal sëriñ bi rek moo ma tax a jóg te bu sëñ bi déglee ñu ñu lànk bu teelee ñu lànk fétal rek aw aw seen yoonu bopp fétal rek du ñu jëfe ndigal du ñu bàyyi tere ba noppi nag di tuddoo sëriñ bi loolu mooy nduxum ndax ku lay tuddoo ne sag njaboot la bokk sab soppe la te boo diglee mu mu lànk boo teree mu lànk loolu mooy nduxum loolu nag amoon na ci jamono yonent bi am ci jamonoy sëriñ bi ba fii mu ne am na ci sunu jamono bi ku ca bañ a bokk nag da ngay xool fa ngay teg sab tànk mooy lan sëriñ sëriñ bi ne woon na yàggadi wu ma fi wax naa ngeen dégg jëf naa ngeen gis bind naa bàyyi fi defar naa ay nit bàyyi fi ku mel ni sëriñ Muntaxa mi di ko topp ci ginnaawam doo fakkastalu doo sant doo réer waaye nag topp ci ginnaaw koo xam ne day dugg ci ay kàmbu di génn nga ànd ak moom sërëx sërëx sërëx sërëx te tuddoo sëriñ bi dangay ngay nax sa bopp moo tax munu jub rek wax na ko jub rek jub rek kon nag dëng wala ànd rek ku dëng koo ko def da ngay nax sa bopp kon ku bëgg ixlaas na ci mbooloo na nga segg nanga xool xam ne nduxum dana ci tàbbi mooy di tuddoo mbooloo ba di tuddoo sëriñ ba te yàlla taxu koo jóg sëriñ bi taxu ko jóg moom la ku da ko waxoon ne taisa abdul dinar wa abdul dirham wa abdul xamisa in utiya radiya wa in lam saxita taisa wantakas wa ida chiika falan tuqish koo xam ne saa yi rek moo moo ko tax a jóg addunaa ko tax a jóg jekk rek moo ko tax a jóg tax nag muy tuddoo lislaam di tuddoo sëriñ bi du fi jóg mukk ci àdduna kon ni ñuy xamee ku sellal mooy dangay ngay moytoo siiw da ngay tuumaal sa bopp da ngay nëbbu say jëf dangay ngay yemale jiitu ak ñu jiite la dangay ngay sàkku ngërëmul yàlla te bañ sàkku ngërëmul bindeef yi euh, dangay ngay itam euh, takk sa lakasaay mu bañ a yolom dangay ngay bañ a xatal mbooloo ma ku xam luy defar boole ko ca ku mën luy defar boole ko ca waaye da ngay sédd na ndoxum dana ci tàbb soo góorgóorloo ci yooyu ba noppi nag xamal na nag yow yaay muxlis te boo nekkee muxlis nag day mel ne garab boo xam ne day meññ lan mooy meññeen ma meññeen mu bare bare bare la waaye dama ciy jukki ay benn benn ba ci njëkk mooy soo amee ixlaas da ngay am sakiinatu wa tumaniinatu dangay ngay am dalug biir da ngay am jàmmi biir ndax ku jëm ci dëkk ku xam fa nga jëm xam yoon wala fa jëmee da nga noppalu ana foo jëm da ngay sàkk ngërëmul yàlla ana lu la ko mën a may ana yoon wala fay jëme mooy ixlaas kooku kon day noppalu waaye ki bëgg a dem di xamul fi mu jëm wala xam na fi mu jëm waaye xamul yoonu wu ko fa jëmee kooku amul jàmm alxuraan nag mi ko misaal ci jàmm boo xam ne dafa am benn sang xam na li sang ba bëgg bu xëyee ca lay xëy ca lay gont xam na li sang ba bañ du ko jëf mukk du ko wax jàmm boobu dana noppalu dana am ngërëmul sangam am beneen jaam boo xam ne nag dafa am sang yu bare bare bare yoo xam ñoo ko moom ñoo ko bokk te sang yi bokkuñ ay bëgg-bëgg li kii gën a bëgg moom la kii gën a bañ bu ko kii ne demal kii ne ko toogal bu ko kii ne jógal kii ne ko demal su ko defee doo am jàmm ndax mënta si am ngërëmul sang yépp te mënta mënta mënta xët say ndigal kon ki sellal di jaamu yàlla dong dong mooy jaam bi am benn sang di ko xëyal di ko gontal ki nga xam ne dafa bëgg lu neex nit ñëpp mooy mooy jaam bi am sang yu bare bare bare bare daraba allahu masalan rajulan fii shurakaa'u mutashaakisuun wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyaani masalan bu ñu yem mukk ci àdduna kon meññeen meññeen ma ba ci jiitu mooy dangay am dalug biir ndax benn danga am benn sang di sàkku ngërëmal di ko xëyal di ko gontal waaye ki bari sàng nag te mënta sàkku seen ngërëm ñoom ñëpp te mënta xëtt ndigal kooku du am noflaay muy benn ñaar mooy da ngay am dëgëru biir ak doole biir joo xam ne kenn du la mën a dégg bu ngeen gisee nit yàlla yi ni ñuy tuute ci jëmm ak ni ñuy dëgëre ci pas-pas lenn mooy mooy lu mooy ixlaas ndax kii wut alal xam ne sëriñ bii moo ko ko mën a jox dana ko waggar dana ko bàyyi xel kii wut daraja na wut ak pal ak ndombo tànk xam ne kii moo ko ko mën a xañ dana ko waggar waaye ki nga xam ne xam ne yàlla dong mooy joxe moom dong mooy xañe du yaakaar kenn ku dul yàlla du ragal kenn ku dul yàlla kooku day am doole biir joo xam ne ku ko xupp du daw ku ko xëpp mooy di ko neexal du tax nga am ci moom li nga bëgg moo tax sëriñ boo xoon ne ad-durru wa nafu min ar-rahmani laysa min al-bidani wa sudaani njëriñ yàlla rek fa lay bàyyi ko lor yàlla rek lay bàyyi ko kenn du jariñ kenn dara kenn du kenn du lor kenn dara ndax kenn ko ne am nga soxla soo mun da faj am nga loo bëgg a tàggool mu mu lëjël la te mënoo tàggoog moom moo tax ngën ji mbindéef mos naa wax ne war naa ci yàlla ne bu ñu ma doon neexal adduna ak li ci biiram wala ñu may xëbale àdduna ak li ci biiram du tax ma bàyyi li ma yàlla yónni mu ne wallaahi la wadaw shamsa fi yamini wal qamara fi shimali ala an atruka hada al amra ma taraktuhu xata yusbiru llahu aw ahlaka duna damay faatu rek wala yàlla am li mu bëgg waaye du ma bàyyi li ma yàlla yónni kon kenn mënu maa xëbal kenn mënu maa neexal li yàlla bëgg rek moom laa bëgg li bañ laa bañ moom la sëriñ bi waxoon ne falastu arju wala axsha siwa maliki yaakaaruma kenn ku dul yàlla ragaluma kenn ku dul yàlla li annahu jàlla yuxniini wa yunjiini ndax li ma ragal moo ma ca mën a musal li ma bëgg moo ma ko mën a jox moo tax nitu yàlla ki am ixlaas dafay dëgër dëgëru biir kenn mënu koo xëbal moo waral ba mu demee ca bureau gouverneur ca Ndar nga xam ne ku fa dugg da ko bàyyi xel ah, dafa raglu da nga ko ragal wala da ko rus ba mu duggee moom dafa lalu deram julli ndax yàlla rek la ragal yàlla rek la yaakaar kon ixlaas loolu lay jur da ngay dëgër da ngay am kàttan goo xam ne kenn du la mën a neexal kenn du la mën a ger kenn du la mën a xëbal ba ca tege mooy ci meñ meññeet mi dama koy tënk soo amee ixlaas ba mu doon dëgg-dëgg ixlaas sunu borom dalay baaxe loo jëfati mu bind la toyaaba ko jaamu yàlla say aada sax jëfi aada yi soo lekkee am toyaaba boo naanee am toyaaba boo tëddee nelaw am toyaaba boo sóonoo am tuyaaba boo doxee loo def am tuyaaba moom la sëriñ bi naan axadtu min dunyaahu zaadi lil jinaan moom la naan nawmi ibadatu rabbin la sharika la qalbi yudabbiru aayan aayan tuurisul xikama dangay ngay dem a dem ba soo nelawee am tuyaaba dafa am bis ku ñu wax Saad ibn Abi Waqaas ngeen ñi mi def ne ko loo joxe ci sa alal ci yoonu yàlla yàlla bind lu teew ba ci dépasse bi ngay jox sa soxna mu toggal la taaj la nga lekk da cee am tuyaab kon soo amee ixlaas da ngay dem a dem ba say aada sa jëfi aada day soppiku eh, ay jaamu yàlla moo tax ñi jëyaat ci yoonu yàlla yàlla nee na bu ñu xiifee am tuyaaba bu ñu maree am tuyaaba bu ñu sonnee am tuyaabo bu ñu duggee ci xur am tuyaabo bu ñu yégee ci tun lu ñu def am tuyaabo soo amee ixlaas loo def am tuyaabo loo jëf yàlla fay la dalik bi annahum laa yusibuhum ramaun wala nasabun wala maxmasun fi sabilillahi wala yatawun mawtan mawti an yarisul kufaara ba aaya ba jeex loo def am tuyaabo ba ci tege mooy soo amee ixlaas di jëf lu baax ci yoonu yàlla lu baax loo tàmbali tàmbalee ko pas-pas bu sell ak yéene ju rafet te mënoo ko yeggale dañ la bindal toyaabooy ku jëf ba yeggal loo tàmbali rek yàlla rek tax nga tàmbali ko donte mënoo ko mënoo ko yeggale dañu lay bindal yoolu ku yeggale moo tax boo seetee jumaay Tuubaa ña ko tàmbali woon fekk wuñ mottali ko waaye amoon nañu yéene mottali dañuy am toyaaba yu ko yeggal ña koy yeggal ña ko yeggale fekk bañ ko yeesal bañ ko bañ koy bañ koy yokk dañuy am toyaaba yu ko yokk ña ko yokk dañuy am toyaaba yu ko yeesal muy Cheikh Moustapha ak Serigne Fallou ak Serigne Abdou Lahad ak Serigne Abdoul Khadir ak Serigne Saliou ak Cheikh Mamadou Lamine Bara moo tax lu baax sooy tàmbali tàmbali rek. moo tax nga dégg taalibe yi naan man damay tàmbali rek sëñ bi yeggale dañ koy wax muy nur waxe daanoo waaye booy tàmbaleel yàlla mooy yeggale moo tax yàlla wax ne wa man yaxruj min baytihi muhaajiran ila llahi wa rasulihi summa yudrikul mawt faqad waqa ajru ala la soo génnee di gàddaay ci yoonu yàlla far dee ca yoon wa faatu ca yoon wa yàlla dalay bindal toyaabooy ku gàddaay dem ba àgg fa mu jëm kon lu baax lu ñuy tàmbali na am pas-pas bu sell ak yéen ju rafet te xam ne su yégul tam dañuy am toyaabooy ku jëf ba mu yegg ba ci tege mooy li tax ixlaas baax soo amee ixlaas lépp loo yéene muy loo nar bëgg koo jëf yàlla dogal mënoo koo jëf dañ lay bindal toyaabooy ku jëf ba mu yegg moo tax ngën ñi mi def wax na ne ku jékki ba guddi ngay fatu ci sab néeg am yéene boo tëddee ba xaaja guddi nga jóg naa fi la far nelaw not say bët ba mënoo jóg nga nelaw ba bët set dañ la bindal toyaaboy ku fanaane naa fi la ndax lan da ngaa amoon pas-pas ak yéene naa fi la guddi nelaw not say bët kon la nga la nga yéene ak la nga nar mënoo ko waaye dañ lay bindal toyaaboy ku jëf ba mu mat moo tax ixlaas am solo loo yéene te jëfoo ko dañ la koy fay moom la sëriñ Moussa Kanaan yéene moo ëpp pay jëf ba ca tege mooy soo amee ixlaas def te yàlla rek a tax man ngaa juum ca jëf ja waaye dañu lay fay toyaaboy ku jëf jëf ju jub yow dangaa ngaa juum te jëf ju juum mooy jëf ju dëng dañu lay fay toyaaboy ku jëf jëf ju jub dafa am ci jamono yoonu sallam koo xam ne dafa bëggoon a def te yàlla rek a tax mu bàyyi ba xaaju guddi ba suuf sedd mu jël ci alalam lu takku génn ne ku ma jëkk a dajal jox la ko te yàlla tax daal dajeeg benn waaye jox ko ko ne ko am yàlla jox la ci ëllëg sa mu fabaat ci alalam lu takku bàyyi ba suuf sedd mu génn ci mbedd mi dajeeg génn jigéen mu ne ko am yàlla jox la te yàlla tax ca ëllëg sa mu jël ca alam lu takku bàyyi ba suuf sedd mu génn këram dem ca mbedd ma dajeeg beneen waaye mu ne ko am yàlla jox la kon dafa sàkk sarax ci alalam ñetti guddi yu bokkul ba mu ko defee nag yàlla wan ko ciy nelaw ku ñëw ne ko yow de danga sàkk sarax ñetti yoon bis bu njëkk ba waa ja nga sarax ab sàcc te ab sàcc kenn du ko sarax waaye jox ga nga ko jox sa alal te moom mu doon jóg ngir wut ngir ngir sàcc alal jàmbur tax na ba xolam tooy ba tuub na bàyyi na sàcc guddig ñaareel ga ka ka nga dajal jox ko sa alal muy jigéen kuy dox guddi di taxawaalu guddi la di seet moroomam mu dëng ni moom rek mu ànd ak moom taxawaalu waaye ba nga ko saraxee dane bu ñépp meloon nii duma ma def lu naqar yàlla tax na xolam tooy na ba tuub na ba dootu def lu naqar yàlla guddi ñetteel ga waa ja nga sarax sa sa alal ja moo la ëpp alal ku bari alal waaye du sarxe waaye ba nga ko joxee sarax ba tax na mu yedd boppam xolam tooy na nee na bis ñi ngi tey fas naa yéene lu ma am jox ko yàlla kon gis nga sàkk sarax jox ko sàcc jubut jox ko jigéen juy taxawaalu jubut jox ko ku la ëppale jubut waaye la muy dëng-dëng borom suñu borom da ko bindal tuyaaboy ku jëf-jëf ju jub moo tax boo sellalee boo jëfoon mu dëngatam da ngay am tuyaaboy ku jëf mu jub ba ca mujj nag te moo ca gën a yéeme mooy boo sellalee euh, di jëf-jëf ju baax jëf dafa am biir am biti waxoon naa ko biir ba mooy yéene ju rafet moo koy lal ak pas-pas bu sell biti ba mooy day dëppoog lislaam booy jëf jëf ju yiw nag am ixlaas ba sunu borom nangul la mboolem bàkkaar boo mos a def da koy soppi ay toyaab bàkkaar na nga naan sàngara ba sàngara si jeex na nga dox tànk caaxaan ba caaxaan jeex na nga lekk ribaa ba ribaa jeex loo mën a def sunu borom da koy soppi lépp ay ay moo tax mu ne wa man ya wa man yafaala dalika yalqa asaama yudaaf lahu alazabu yowma alqiyama wa yaxludu fihi muhaana illa man taaba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu yubaddilu llaahu sayiatim xasanaatim wa kaana llaahu gafuran rahima boo amee ixlaas mboolem lu ñaawloo moo sa def sunu borom da soppi ay tuyaabu soppi ay yiw kon muy yiw ci kaw yiw nekk nuurun ala nuur kon ñu gis ne mbokk yi lixlaas lu ko waay jënde jar na lu ko ëpp te sun kilifa ji toogoon fii bu ngeen gisee ni muy jëfe dégg ni muy waxe ngeen xam ne jëfam yëpp lixlaas rek moo ko lal waxam yëpp pas-pas rek moo ko lal kon nag nanu fas yéene topp ci ginnaawam di ko roy ci jëfam tey déglu ay ndigalam te nag ku ñu bëgg a weneen yoon woo xam ne bokkut ak yoon wii ñu xam ne dañuy réeral dañuy lëndëmal kon yàlla yàlla ko yàlla bàyyi ci sunu kanam diir bu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg ñii di ay ay ay ndawam di ay ay ay loxoom di ay tànkam sunu borom yàlla yàggal leen ci ginnaawam ñu yàgg yàgg ko doxal yàgg ko waxal nun tam nu doon rek ay ndawam yoo xam ne fu mu ne jóg leen nu jóg fu mu ne toog leen nu toog yàlla na ko teewee déwén yu bare bare bare bare wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa